xarit yi ñuy seetaan à travers Dakar Buzz TV dal leen ak jàmm ci seen émission tase ma dem seetiwaat beneen daanaan décor bi nag boo leen ko gisee xam ne ñu ngi euh, ci marché donc maa ngi fii euh, ci marché bu Grand Médine daal di fekk si ki nga xamante ni mooy Demba laata ñuy wéyal suñu waxtaan dama koy bàyyi mu nuy wax yéen ñi ñuy seetaan à travers Dakar Buzz TV Demba maa ngi lay nuyu di la dalal. waaw maa ngi lay fay di la ziar euh, di ñaanal samay waajur sama waajur bu góor ak sama waajur bu jigéen di leen ñaanal yàlla na leen yàlla bàyyi fii ba si kanam a kanam. di ñaanal sama sëriñ sañ Abdou Karim Mbacke yàlla na fi yàgg te wér ak euh, bépp tarixa ak bépp kilifa diine yëpp ah di ñaan Sénégal yàlla na ci yàlla def jàmm aussi tamit di jaale sama mag sama xarit muy Waly Seck suñu papa ju baax ci teel a génn àdduna nii ngir yàlla euh, xajoon na fi nag ba si kanam mais bur yàlla ak bur yàlla ak pexe euh, bur yàlla ak dogalam jaam ak pexem dañ koy ñaanal fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge ci barke Seydina Mohamed waaw maa ngi nuyu ñëpp macha allah defe naa euh, papa Thione moom euh, papa Sénégal yëpp la euh, ndax defe naa tur bi rek wuy na borom donc ñu koy ñaanal fi mu dem gënoon ko lool fi mu jóge dem ba tey dañ la seet si pour amal ak yow waxtaan ngay artiste boo xamante ni fii ci Sénégal ñëpp gis nañ la ci waar bi en tout cas ngay def lu am solo alors tey ñoo fekk si la fii ci sa bërëbu liggéeykaay mais li la sénégalais yu bëri gën a xamee muy comédie bi bëggoon naa xam lan moo la ci dugal. waaw waaw loolu moom moo wax ci man sax mënuma cee lépp. ndax euh, comédie bi sama bëgg-bëgg la ndeysaan man damaa bëgg aar damaa bëgg aar léeg-léeg damay war a xëy sax bàyyi sama xëy dem ci aar bi waaw damay bàyyi dama war a dem damay war a dem seeraat liggéey seeraat laa ne mais saa bu ma wàccee damay ñëw fii sama place mag bi ndax gannaaw yàlla ak yeneen bi la bu ma lu ma lépp lu ma xam ci euh, nag xarak bëy gileem yëpp ci moom la muy Tafa Sall maa ngi koy nuyu sama mag jooju mais aar dafa nekk li mu bëgg quoi dafa nekk li mu bëgg. waaw ah, parce que man comédie bi ñuy comédie bi rek njëkkeewuma ci comédie bi man damaa jaar ci bëre. dama doon bëre. ma doon bëre. mbapat. aree nag lépp ci père Birahim Ndiaye laa nekkoon maa njëkk a jël tournoi souvenir mooy de 17 ans maa ngi sama licence ba tey ne sam papa xam ma waajur moom bu la teree rek da ngay bàyyi sam papa moo ne ma bàyyil bëre du ma xëccoog moom lu mu wax noonu la waaw ndax ndaw moom bu bëggee mucc na dégg ay ndigalu waajuram ndax loolu mooy tax mu mucc. te ba ma teree ba léegi rëccu ma ci dara moo waral ma bàyyi mais comme que damaa nekk ci armée di tëgg di bëree di simb di kii di simb di def simb naa def naa lu ne. dama nga doy waar. yii waxuma la doy waar sax su ma takkoon jaaj yi léegi léegi nga ne ma noonu li laa mënee suñ borom dafa am lu mu def ci man loo xamante ne du forcé ndax man forcé wu ma ko lii lii lii ma lii ma kii nii macha allah melu ma nen toju ma fenn mais suñ borom moom moom moo am lu mu def ci man. da ci xolu sénégalais. waaw waaw la yàlla def ndax fii nii doomu aadama yi kenn mu leen nax boo oyofee ñu ànd ak yow mais rek diib man boo gisee ni ma mel ni nga xam ne man dara ñoruma lu dul bégal doomu aadama yi teg ci doon ba nga nekkee taalibe Sëriñ Tuubaa rek la lépp la la lépp neex la lépp neex parce que Baye Fall mooy lépp boo nekkee Baye Fall am nga ñëpp te gëm naa ni aar bi may nekk nii dara dara mënul tax ma bàyyi ko ndax dafa nekk ci li mu dafa nekk li mu bëgg quoi mais teewul damaa am sama métier bopp. su ma demee su ma xëyee su ma wàccee maa ci aar bi damay sangu ba set sol lu rafet dem ci gaa yi nekk ci aar yi jee ba mu neex bu ñu bëggee doomu aadama yi ñu bëgg moo ma gënal ay milliards man ku bëgg rek kontaan naa wallaay euh, ba pare di gërëm ñëpp di nuyu sam ji nekk États-Unis euh, barki démb la ma woo père Ousmane Fall barki démb la ma woo ma ñëw këram mu yëkkati xaalis bu bëri jox ma ko maa ngi koy nuyu au passage lundi bii la dellu dimanche laa dem këram la ñuy door a gisee ndaysaan mu gis ma bëggal ma boppam jox ma xaalis bari maa ngi koy nuyu au passage yàlla na jàmmam yàgg. d'accord Demba donc euh, sénégalais yi macha allah ñu bëri bëgg lool li ngay def mais dañ lay gis tamit ngay ànd lu bëri ak kii di euh, Bouba Dambaaw defe naa euh, clipam boobu cartonné yaa ngi ci woon gis nañ tamit événement yu bëri bu ciy dem da ngeen di ànd seen diggante yéen ñaar. waaw Bouba moom sama rakk la. buuba sama rakk la buuba jamono yu muy simbal la ma yàgg gis bëggal ma boppam moom da doon fubal parce que su ma ko gisee Balatoni laa koy tuddee Balatoni ndax moom daa mënoon fubal ba pare eh, na ma ya maa ngi jégalu dafa reew dafa reew ci li muy def te macha allah xale bu am yar la nag mu nekk sama rak sama xarit yaayam tamit nekk borom baax jël ko dénk ma ko ne ma buuba sa rakk la waaw buuba moom sama rakk la waaw day def ci aar dugg ci aar yi ma ne ko defal nii do nii boo leen neexee rek neex nga leen doo kenn dootu la bañ comprendre nga li nga nekk nekk boo ci nekkee li nga bëgg nag ak fulaak fayda boo ci boolee fulaak fayda bàyyi yëfu caaxaane suñu borom dina la dimbale àdduna dinañ la dégg looloo waral lu mu am lu ne rek damay woo damay booleeg ay nit sax ndeysaan damay booleek ay nit ma dem ci ñoon ñooñu yëkkati teraangu bëri may ma waaw maa ngi koy nuyu waale sama rakk ju baax jooju waaw maa ngi koy nuyu moom moom sama rakk la lu mu am lu nekk rek balaa mu cey def dara man la ci njëkk a waxal ma ne ko defal lii ak lii lii ak mu def loolu dëgërul bopp sama rakk sama xarit la waaw maa ngi koy ñaanal li mu bëgg ci aaram moo ko xam yàlla na ko yàlla defal. amiin amiin euh, Demba bëggoon nañ xam nax aar bi yomb na. aar bi aar bi yomb na yombul yomb na yombul parce que dañoo toll ci moment boo xamante ne euh, ak jamono juñ nekk boo euh, ku nekk kuy xew di nga gis. ñi nga xam ne dañuy mën piir mais yàlla du leen gaaw a génnee du leen gaaw a génnee te aar day nekk ci ñoom macha allah gis nga man sama waa groupe muy groupe yàq ñu ma gën a neex fuuf fuuf fuuf fuuf nekk barke alxuraan ñu ma gën a neex fuuf te aar daa nekk ci ñoom mais man it lépp lu may def dinaa ci yëgloog ñoom ba pare ñu ne ma defal lii ak lii ndegam ñoom ñoo ma jiitu ci aar ma def lii lii bu ma bu ma bu ma bu ma defee li ma digal du ci am leen lu may lu may rëcc waaw dama ciy gis avancement ma leen nuyu di nuyuwaale Sanew Pay euh, Mansour Pambay Daam ñëpp ak Ngo As Khady Diop ñëpp maa ngi leen nuyu waaw di leen nuyu au passage di leen ñaanal jàmm ñoom tamit ñoom ñëpp. am na solo mu mel ni kilifa dafa baax ci lépp loo gis euh, mais ba tey euh, bu ñu xoolee Demba seeni ay xeetu déguisement Demba say dàll foo koy jëndee say xeetu daal daal yi de man maag yow ñoo ci bokk yam da ngay gis ku baax ku baax ñëw woo ma ne mais Demba waaye dama am dàll pour yow ma ne waaw man dàll pour man man ma ne. foog kooku foog nga boole ko sénégalais. waaw ko booleeg sénégalais dam damay woo ne ma Demba dama am dàll yu baax pour yow say dàll ma yaakaar ne su ma ko solee dàll yi may sol xam nga man 40 laay sol wala 42. damay ñëw xool mu indi ngan di dàll ma xool pointure bi mu nekk mille ma ne waa. pointure <laughs> mais mais doomu aadama yi lii xam naa ne lii benn lii du tànk nit tànk nit xajul lii échantillon la rek mais danaan ma jëleel lii man it bu ko defee dama dama koy jël di ci bànneexu di ci bégal <laughs> doomu aadama yi ndax daal yi balaa ma kaa sol dinaa ree ba dootuma deser rek wañ moom daal yi moom dama koy xool rek dajeeku suñu xeetu déguisement moom fu ne su mais pay tamit suñu ménageur moom mooy lijjanti déguisement yëpp mooy dem dem ci marché lundi yeeg yooyu wala ku wàccee conteneur mu dem xool fa bagage yu rëy jënd yëpp ku ci ku ci nekk mu jox la ne am bi yaa moom bi yaa moom te buñ ko solee balaa ñoo jouer ñun ñëpp dañuy ree ba suñu deru biir yi day metti billaay wallaay ñun kenn ku ci nekk da ngay dajji sa morom donc ni nga ko waxee rek aar bi yombul nga nekk ci di bay sa waar bëgg ko mu nekk loisir teewu la euh, terewu la benn yoon def li nga xamante ni mooy sa métier. alors euh, tey ni nga ko waxee rek aar bi tepp tepp la doo xëy rek lépp sotti ñu dem ba ki nga xamante ni ñu koy woowee le roi de la musique sénégalaise Youssou Ndour l' artiste international woo leen euh, ci show bu mu doon def ci mois de décembre bi lan la la def loolu. waaw loolu moom tabaarakalla macha allah loolu daa nekk lu rëy ci man daa nekk ci daa nekk lu rëy ci man parce que kooku kooku macha allah Pa Moussa moo ma woo dama bi dala soxla ci dalaa invité ci affaire am ñu ñëw. xam nga man ku ma gis ku ma xam ku nekk xam ma maag Pekaay Mbaye xamee maag sekk Seck xamee maag Youssou xamee maag Waly Seck xamee maag Baye Ousmane xamee maag euh, si Sidi Diop xamee maag artistes yëpp parce que man artistes yëpp samay xarit lañ mais ku mel ni Youssou Ndour bu la woowee ku mel ni Waly rek bu la woowee waxuma laa ak Youssou ku mel ni Waly wala ñoom Thiat ku mel ni ñoom Thiat ñoom sax sonuñu ku mel ni ku mel ni Ouzin Keita sax bu la soxlaa bu la soxlaa da ngay xam ne yow li ngay def nii sénégalais yi ñu ngi lay bàyyi xel ak euh, artistes yi ndaanaan yi ñu ngi lay bàyyi. yëg-yëg maanaam li ngay def am na solo waaw bañ ma woowee ba man dama jàpp ne man bu Michael Jackson doon dund bu Michael Jackson doon dund sama gëm-gëm dina ma may ma yëg seenam G G yéeg seenam G parce que parce que parce que boo dee def dara kilifa yi bëgg ci li ngay def rek da nga war a gën a mën a góorgóorlu. da war a gën a mën a góorgóorlu may may ma au passage sax di nuyuwaale sama père sama papa ju baax ji muy Youssou Ndour bañ jiyee ba pare xaalis bari la jox Pa Moussa pour Pa Moussa jox ma ko maa ngi koy ñaanal li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal. daa mel ni aar bi am na xaalis de. waaw bi am na xaalis. ma max yow wax de. waaw bi am na xaalis amul xaalis. waaw aar bi am na xaalis amul xaalis mais gannaaw yàlla ak yonent bi teraanga bu mu am yëpp sama métier moom ma ko may muy seeraas yàpp moo ma may li ma am yëpp ndawal nag ak xar ak bëy moo ma moo ma may teraanga bi ma yàlla may lépp waaw parce que olof yi olof dañ koy wax olof Njaay dafa boo fàttee li la fal li la fol folli day yomb du ma ko mës a fàtte am na benn waay bu ma doon werantal benn tudd copain am mu jënd xar ah, mu ma jël xar bi fees ko wekk defar ko ba mu normal ñu toog mu ne ma booy yow yaa ngi kii rek te ñu ngi lay gis ci tele bi rek yow boo demee ba nekk artiste yu mag yooyu noonu bu ñu la woowee ay danga naan maa ngi ñëw te kenn du la gis ma ne ko wallaay azim billaay wallaay barki sëñ Abdou Karim Mbacke bi ma yaakaar tey ak ëllëg su ma yàlla defoon président nga xewle woo ma maa lay jox li ngay xewee yëpp ak nageeg yëpp summeeku feesal la beneen waay ji ma nekkal ne ma bàyyi waxoo dëgg loolu mënul nekk mu ne ma fii ñun sénégalais yi ku ci siiw rek fàtte fàtte ña nga daan fool ma na ko nag. mais tey firnde bi euh, euh, bu yàggul dara euh, Papa Thione ndeysaan keroog bañ koy saraxal gis nañ la ci dóor waar bi. waaw waaw maa ngi ci woon maa ngi ci woon te sax damaa yéex a ñëw damaa yéex a ñëw fekk gars yi nekk ci nag yi ñu continuer jàpp ci liggéey bi waaw jàpp ba mu ba mu baax man déggu lu ma laax man Baye Fall boo gisee ni ma dégg si moom nga xam ne Baye Fall mais Demba euh, soofu ca Seras euh, macha allah sama cata sama catu morom dañu naan euh, pour fees nag rek Demba moo ñu ci doy. waaw loolu loolu suñu borom day am lu muy lu lu lu muy def ko ku ci nekk da nga da dañoo mënante ku ci nekk danga nga dañoo mënante comme yow comme maanaam boo xoolee sa juróom baaraam yi ni ñu sutante noonu la gars yi sutante foofu man am na ñu ma dàq liggéey fop toolu ma leen sax catuwee bilaay sama mag ji sama mag ji kenn dàqul liggéey loolu mais léegi li ñuy liggéey liggéey kàttan la boo demee ba tollu yenn âge yi dootoo ko mën waaw man nag damaa nekk xale moo tax loo indi ci sama kanam ñu war koo liggéey dama koy liggéey vite fait Seras nag maa ngi nuyu ñoom Malaw ñoom Pape Diagne ñoom MC ñoom euh, Mbaye Babou ak Ousseynou Assane ak Amé Diagne ak Aliou Yarax ak ñoom Thierno Diop. Boubacar borom ndekki ne. waaw Boubacar ak Boubacar sama xarit sama doom sama lépp. maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp waaw Seras moom dóor waar rek Seras laa jóge wàcc léegi damaa ñëw yegg si rek di commencé tàllal rek ngeen ñëw saa bu ma xëyee damay xëy Seras su ma wàccee laay ñëw. tey dañuy ñëw ci dóor waar boobu parce que tey euh, bien vrai que nga nekk célébrité sénégalais yëpp xam la macha allah na tey boo doxoon fii ñaari pas ñetti pas nit dogale la neneel Demba ñu foto wala Demba ma am sa numéro tey loolu yëpp nga tëxañ ko euh, terew la dóor waar xeeboo li ngay bëgg li ngay def fier ci li ngay def tey suñu moroom jeunes yi nga xamante ne dañuy taamu yenn liggéey bëgguñu ko def tey ban message nga leen di loolu rëy la rek gis nga boo rëyee boo rëyee wala nga xeb benn métier bi da sa bopp rek parce que gis nga boo nee topp naan non lii laay def lii laay def dem ba benn instant da ngay dépassé fi ngay jàngee métier bu boobaa da ngay matt sa loxo wi tax góor goo mënti doon boo jàngul même booy jàng sax war nga xool métier bi nga gën a bëgg. nga ci sooxaale nànk-nànk ba yàlla di def ma ni ngay demee comprendre nga euh, aar bi nag fiir na fiir na metti na aar da koy booleeg métier mais boo toppee aar bi kese ah di nga dem ba benn instant day metti sa côté comme lu waral xolo coronavirus gis nga ñaata artiste ñi nga xam ne ci aar mi rek lañ ko wéer seen côté métti yàlla moo leen doon dimbali rek mais seen côté métti na comprendre nga dañ koy booleeg métier bépp xale bu nekk xale bu góor bu fekkee bëgg nga teral say waajur ak say njaboot da ngay dem uti métier yor sa métier bopp man de bëgg bëgg bëgg man xam lu ma teree nelaw fi mu nekk nii lee ngay seen immeuble yële ngay seen ñoo ma tere nelaw fekk jënduma ko ak samay njaboot jëndal ci sama yaay su ma deewee du ma tàlli moo tax may xar sama tànk tubéy di dóor waar comprendre nga parce que man it bëgguma di tàllal kenn loxo boo dee boo dee yàgg boo yàggee seet nit mu lay may may saa bu lay yàgg bu lay yàggee may bu yàggee dalay jëpp te man ñaanuma yàlla di tàllal sama loxo kenn dala ñaan man dóor waar rek su ma amee dërëm doyloo naa ko su ma amee ñaar dërëm doyloo naa ko comprendre nga waaw loolu mooy solo lool loolu moo ëpp mooy mooy priorité mooy lépp nag. mais tey démb sa famille euh, la ñu gisee aar bi ngay def. waaw samay samay famille aar bi aar bi ñuy aar bi ñu xanaa lu dul kontaan ndax lu ma am lu ne dem naa ko yóbbul si ñoom parce que ñoo ma gënal lu ma munti am. ñoo ma gën a lu ma munti am waaw parce que dañ koy wax soo amee bokkul ak say mbokk yàlla loolu la gën a bëgg loo am bokk say mbokk man lu ma am dama koy bokk ak mbokk waxuma la ak jàmbur yi barke alxuraan. dañuy gis ci sa wax danga naan sama yaay sama yaay Demba sa digganteeg sa yaay. sama xol sama xol nga laal. lan moo marqué si jëmm jooju. Eh, jëmm jooju kooku day kooku kooku day kenn ci man kooku day kenn ci man bañalu ma dara barke alxuraanu karim. billaay wallaay dama koy ñaanal yàlla na dund ba mu fekkee sama njëriñ barke sëy fekk yóbbu ma ko màkk jëlul ma ko sama deewee dama taale sama yaay moo gën a lu ma mënti am ci kaw suuf barke alxuraanu karim billaay na marqué ci li nga dund ak moom li ma dund ak moom maan ko maanaam ma maanaam sama yaay moom musuma def lu ma metti musuma def lu ma metti moom lu ma wax waaw lay wax te du werenteeg man su ma xoolee sax moo xam ne am na lu mu métti danaan ma baaba daan moo xew bañ na ko ba baaba la may wax soo seexam yi caat sax seex saa bu ma ñëwee gaare moto bi dan naan yaay sa doom bi nga gën a bëgg ñëw na moom nëbbu ko kenn nëbbu ko kenn kenn kenn sama ci bakkanam la ma teg moo tax ni man dama ne ko man sama bakkan ak sama fépp laa la teg yaa ma gën a lu ma munti am moo waral ma toog nii moo waral ma toog nii nee naa ko moom day yëkkati dama yor xaalisam mu ne ma li nga yor nii demal nga tukki ji nga toog fii man baaba loo def baax na man ne ko yaay du mu tukki feeg dug dugaluma la ci kër lu mu tukki billaay wallaay feeg dugaluma la ci kër sa kër am mu ngi këru boppam nag am na kër boppam macha allah mais man mu dugal ko ci kër goo xamante ne man maa ko ñefe waaw man moo ma gën a lépp lu ma munte am waaw sama yaay moom li ma gën a marqué mooy lenn ba ma njëkkee jël ba mu demee bëri ji jël tournoi de souvenir euh, liñ ma jox wala yeeg yëpp ma jox ko ko te man damaa xalaatoon ne woon avant mag kaa jox damay dem yóbbu ko ci père Ibrahima njaay ba pare ndax ci moom école euh, école laa nekk ci moom laa koy yóbbu ba pare balaa maa dem fenn ma njëkkee ci sama yaay mu ne ma noonoo du fi tege demal nga yóbbu ko ci père Ibrahima Ndiaye soxla ma dara soxloo ma ci dara ma jox ko ku ma ne sama yaay ndeke ku am ngor la barke alxuraan moom du joxe bopp ba pare rocc làmmiñ moom boo demee boo ko romboon fii ne ko boo waxoon demba ci lenn ma boo newoon demba liwér gi danaan man juruma ko de yéena ko jur man magam laa rek moom magam laa sama yaay moom dafa jàpp ne maa ngi moom ñoo bokk nday ak baay billaay wallaay wóor na Seydina Mohamed moo tax lépp lu ma am man moomu ko gënal waa te dara nag du tax ma bàyyi ko daara du tax ma bàyyi ko billaay wallaay moo ma gënal lu mu munte am dem ba defe naa loolu leer na alors euh, comme dafa dooree ci euh, mbapat donc euh, doon bëre il faut ñu wax ci làmb tuuti combat bi di ñëw diggante Lac de ak ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène ban gis-gis nga am ci combat boobu. ah di ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm rek de xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar di wax làmb la làmb foogre la rek ñii dañuy ñëw pour xeex ñii ñëw pour bëgge ñii ñëw pour xool ambiance. ñii ànd ak seen mbër di supporter làmb la kuñ ci daan na nga ànd ak sa mbër dem ñibbi xam nga ne làmb la parce que daa ñëw pour ut ci ndam kii tamit daa ñëw ku ut ci ndam ku ci yàlla may ndam nga xam ne loolu la ndax ndam li génnul Sénégal gi génnul Sénégal gi waaw ñu dund noo ñu jéem a indi jàmm ak salaam ñu bañ a euh, ñu ba nan lañ koy waxee ñu dund non violence lañ koy waxee di nuyuwaale booy Niang ak Modou Lo Ama Baldé mbëri Balla Gaye Sa Thiès ak euh, nu mu tuddati mbër yi nekk parcelle ñëpp su ma limee damay juum ak Siteu ak Papa ñëpp su ma limee damay juum waaw di leen nuyu di leen ñaa di leen wax nag làmb foogree la rek ku ci yàlla may nam nga xam ne loolu la waaw alors Demba lañu sees si woon tey suñu biir émission euh, Tassé ni ngeen ko gisee muy artiste comédien na ñu xam ko baax waaye tey ñu fekk ko ci beneen facette fekk ko ci beneen euh, monde boo xamante ni euh, ni mu ko waxee rek muy métier boo xam ne yàgg na ko exercer laata muy rek dugg sax si aar bi alors émission bi tey bu amee dama koy sante ki nga xamante ni mooy Penda gise sama mag ju baax ji nee naa ko jigéenu Demba Guissé jigéenu Jibi Guissé sama góor yow jàmm ak salaam rek laa lay ñaanal Penda sama mag ju baax jooju ma bàyyi la nga tàggatoo kooku sama yaay la kooku sama yaay la moo ma yar ca parcelle gu njëkk ga kooku ba mu musaan xoos bakkanam la lay jaay moo aji Grand Dakar ak maam Joli ñooñu boo leen boo leen ku ma musaan laal muy mag muy góor muy jigéen dañ lay dañuy tàkk sa kaw bëgguñu woon kenn ku ma laal ndax dañoo dañ ma dañ doon gis macha allah lu ma am yóbbul naa ko sama yaay dépp ba may nekk xale lu ma am yóbbul naa ko sama yaay moo tax ñu jëloon ma. ta fonk ma tafoon ma seen xol di ma conseillé di ma dëggal lu baax. apare nag aar bii nag li nekk ci man Pape Malick Gueye moo ko def ci man Pape Malick Gueye sama papa jooju moo ko def ci man moo ma jàngal tëgg jàngal ma lépp moo koy nuyu di ko ñaanal jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko gudd fan ak wér moo sama yaay ju baax jëndee sa sec waaw fi mu ne nii sax gaa yi ñu ngi may woo dañoo am commande yi ñu ma war lakkal nii yaa ma gën a xam. ñu def démonstration euh, donc nga tàggatoo ak sénégalais waaw waaw di man tàggatoo bi lenn rek di ñaan yal na yàlla dolli jàmm ci Sénégal waaw di wax nag Sénégal ñu ñoo ko ñun ñoo ko moom bu baaxee ñun la bu bonee ñun la. waaw di nuyu nag sama mag ju baax ji muy Tafa Sall ak Ndiasse samay mag yooyu Tafa Sall nag moo ma jàngal yàpp moo bu ko neexoon du ma fi du ma du ma toog fi di di jaay parce que saa bu ma jugee Seras wàcc sama kër laay dem sangu ba set damay woon na ma eh, defoo dara ñëwal nga teg fii sa poor nga saaf waaw boucher nga lii ci ngay tedd bu ko bàyyi aar bi nag bu bloqué léeg-léeg damay toog fii ñu woo ma programme mu ne ma demal demal programme boo ñëwee di ma fekk fii ma dem mu nekk kilifa mën na maa jur de barke alxuraan wu bàyyi lu muy def bàyyi client yi mu jaay di ma lakkal yàpp xam ne kooku bëgg na ma tedd. waaw kooku aw ma fayam yàlla laa koy bàyyal ba pare teg ci aussi moom ma may soxna moo ma takkali soxna jël otom génnee xaalisam def ci Taba am naa jabar. am nga soxna xale bu rafet bu jekk. alhamdulilah ko sénégalais. waaw dañ non non bàyyi ma génnee ko rek. bàyyi ko rek. non bàyyi ma il faut sortir les filles les les les nan la koy waxee les ma ma <laughs> sama jabar foog ma génnee ko nag dafa baax moo def lépp barke alxuraan. waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm nag li mu bugg ci xolam moo ko xam yàlla na ko yàlla may du nuyu sama soxna nag Marie ak yaayam ak i magam ak yëpp ak maamam ñëpp moom it ku baax la ku yaru la musuma ñaan dara ku oyof la ku ku oyof barke alxuraan musuma ñaan dara waaye dina xam ne góor man ku ma dóor damay fayu góor la ko sédda man ku ma dóor ci lu baax may fayu